Allô Dakar, ici Casablanca. Comme vous le dit, c'est le grand rendez-vous, c'est le grand bégué à Casablanca. le 8 avril, l'indépendance du Sénégal sera fêtée ici à Casablanca avec vous et nous et Pape Diouf et la génération consciente. oui événement multidimensionnel. Après le grand bégué de Paris, le grand bégué de New York, le grand bégué de la Suède, cette année-ci, 2017, c'est le grand bégué de Casablanca avec vous et nous, Pape Diouf et la génération consciente. Je vous l'avais dit, c'est le site des grands événements www.vippeople.net. Nous est partout à travers affaire le monde sur les grands événements couvrir xool gars ñi à quelques jours du grand événement Tange VIP People ñu ngi fii ci Casablanca doxantu dem xool gars yi naka la ñuy jamono ji maa ngi nii di ci consul bi dem xoli wa consulat bi manam nañ ku ñëw ci dëkk ci buntu ba ngay jaar motax ma ñëw setti suñu frère suñu papa suñu mag Massamba Sarr xol wa consul bi nak lañuy préparer le grand bégué ci ak pap Diouf ñew sur le terrain suma ma fofu xam nga fuma jëm maa ngi jëm ci biir marché ba xoli commerçant yi naka lañuy ñuy bëss bobu suma su fofu dem setti association sénégalais yi su fa jógee dem setti étudiants yi mu doon mag bëss bo xamanteni bëss bu mag lay doon fi ci biir Casablanca muy le 8 avril kuñ ci andal Pape Diouf et la génération consciente ci Casablanca le grand Bégué gagne. Le lu bees c'est le grand Bégué c'est le grand Bégué à Casablanca. Oui, ñu ngi nii biir Casablanca di waajal bés bu mag muy le grand Bégué ànd ceeg kan Pape Diouf et la génération consciente. daan nañ fi ñëw nag mais bi yoon beneen événement la dañuy fêter indépendance du Sénégal ñu fekk fi ay doomu sénégalais yoo xamante ne bay seen waar moo leen fi indi di waajal bés boobu tey ni ngeen gisee Pape Diouf ci biir marché bi ban sentiment ngeen ah vraiment kontaan ñun doomu Sénégalais yëpp vraiment kontaan nañu parce que lii mosu fee am la première fois Pape Diouf doon tëdd Casablanca ñu ngi ñaan bés boobu képp kuy Sénégalais dina génn teeru Pape Diouf dina neex incha allah xale yi waajal nañ ko macha allah xam nga lii du yomb parce waa Casablanca du fi gëj a am Pape Diouf Casablanca non du vraiment bëgg nañu ci moom le 8 avril muy bës bu mag fii ci biir Casablanca ngeen am ci doomu Sénégal fekk si ay sénégalais bës boobu nag yaakaar naa ni am na loo xam yëg ngeen ko ci. asalaamaaleykum bés boobu du yomb du yomb du yomb ndax luñ doon xaar la bu yàgg yàgg yàgg yàgg dinañu mbaam ya na noppee parce que Pape ay ne ay

dina mel ni ba Ngor Ndiaye maam ma na noppi di dem. kon ñoo ko déggandoo Casablanca la ñu nekk waaye jox a soxna si nga xool yow de dafa mel ni pare nga. waaw man moom pare naa sa cheveu moom man na. ah bon waaw gis nga lii des mooy dàq kontaan nañu vraiment kontaan nañu bu baax xale yi ñu ngi koy pare cheveux yi génn nañu robe yi génn nañu talon yi génn nañu dëgg neexul surtout ma xale yi Rasta nga xam ne dañoo mën bés. waa bu boobaa foofu dina mel na dege waaw lii daal laa moon ci lu may wax dëgg neex su boobaa foofu dina mel ne dege yow noo ko waajalee ah ñu koy waaj waa Agirasta pare nañ depuis yàgg na yàgg na toog di xaar Pape Diouf yegg si fii ñu àndandoo di suñuy mag suñuy rakk ñu ñëpp àndandoo di daan suñu doole amuñu lu dul Adji Rasta bi bu taw ñu fii bu naaj ñu fii bëgg a teral suñuy waajur comme nag Pape Diouf bu fi ñëwee romb ñëpp ñëw fii ànd ak ñun bu bés ba jotee dañ koy bégge dina mel ni ba góor yaayam maam ma ne noo ko nag génn nañ seen i sëba nag tas ko ndax ñun waa Adji Rasta nammuñu dara kuy def te boole Touba lu toog ci taw bi Touba dina mel ni daje ndax ñun ñëpp waaj nañ mais lii leen wax ah man de man dama kontaan si fa Pape Diouf ndax Pape Diouf dafa way lawbe yi way ba way ba way bu neex a neex a a ma kontaan si lool nag di si animé nag Adji Rass toujours gu jot naan ma yéegalam yéegalal bu ma jaxas émission yi ak sama xabaar dëgg neexu Ah, man maay Amy Mbaye bu Sëñ Fall Pape Diouf ba ma koy xam du tey Pape Diouf a jàppale ma maa ne sama càmmi moo ko fekk ca métti gaag tis ga mu génne ko ci moo tax ma maa ne dem Europe di dem Italie takk jabax tabax kër du koy fa ndayam kon dañuy sant Sëñ Touba ñun nag waa ajarasta yi ñoo ngi ci ñoo ngi ci taw bi ñoo ngi ci naaj bi ñoo ngi ci tàngaay bi ñoo ngi ci dàqante bi am jom bu ko noo def lu bon nag ubbi sunuy néeg cagatuwunu jaayunu sunu bopp waaw dëgg neexut waaw dañ koy wax parce que dëgg kenn du ko ah, nëbb parce que lu bon defuñu ko dëgg kenn du ko nëbb ku ne ci ñu baax day feeñ ñun danoo ba suñuy waajur ca Sénégal mais Mbaya je t'aime sama yaay jooju nga xam ne nag dafa ne démb muñ ba tey fekk ko fi je t'aime Mbay meex Mbaya bu Sénégalais mës a nekk nekk ci tolof tolof taxawu na la Pape Diouf démb mooy bu tey kon bu ñu toogee Casa bu mu ñëw fekk ñu fii ne daf ñuy tëggal soirée duñ def lu kontaan ci loolu du yomb ah du yomb moom bu ñu noonu kontaan li ñu war a wax amul li war a wax yëpp gars yi xam nañ